assalamualaikum warahmatullahi rahmatullahi taala wa barakaatu monsieur le ministre ngi lay nuyu de nuyu monsieur le ministre Bixé de nuyu monsieur le ministre travail Samba Sy da nuyu mbolam ñi nga xamné ñom ngeen monsieur ministre dañu lay sante di la gërëm ci département bu Adar parce que yaa ngi fay gassal ñaari forage muy benn bi jaabi benn bi am dalay sant nañ la ci lool bu baax gërëm la waaye monsieur le ministre département Malem Odor dafa bëri problème ndox ba tey des na fa ñu ngi bëgg nga defal ñu benn forage xel xom bëgg nañ nga jàppal ñu ci gasal ñu fa benn forage monsieur le ministre dafa am dëkk yi dañoo màgg bëggoon nañ nga yokkal ñu ay addiso do fu demee ni saaña fu demee ni lage fu demee ni sëñca mbël buub monsieur le ministre daa wax naa la ko fi sëta doo moom lañ fay ñaan ak medina gowe fa ma dëkk sëta doo boobu ñaan nañ la ko dañuy tëkk ay bidon jigéen ñi dañuy root guddi ak bëccëg jàppale leen ñi si sëta doo yooyu bëgg nañ nga ñotil ñu euh benn addition do bu xam da fay joggé ci commune jokul ñew ci dëkk bu ñoy wax Medina ngeen waxon nañ ko ba Cheikh jog ba Cheikh jog waxon na dana ko def ñu ngi jappalé fofu ngeen jappalé ñu ci bëgg nañ ngeen defal ñu benn forage ci Medina Ñeen dëkk bobu day son nañ lool ci ndox bañ jëmee ci dikké ci jëmono parrainage bi dañ ne duñu parrainage té ñom du dañ leen def ndox mané ne leen forage nak du lo xamné day xey rek am waaye en tout cas fiñ ko wara waxé dañ ko fa wax waaye japp nañ né mu ngi ci yoon parce que forage yi ñaari forage yi ni ci sama mandat ba li la ko topone bare na sogo soti kon japp nañ né yaakar nañ né yéen ngi ci yoon bi ñew monsieur le ministre ngeen am ben programme bu xamné mom ngeen ñu def malem adar boo xam ne da fa war a gas fukki forage ak juróom-ñett yoo xam ne dangeen de yóbbu ndox mi Kaolack pour ndox mu neex te ñu yaakaar ne programme boobu bu ñëwee dana jàppale département Malem Hodar may laaj programme boobu fan la toll maa ngi leen di sant di leen gërëm asalaamaaleykum wa rahmatullah. Donne